الحمد لله رب العالمين جعل القرآن نورا للمؤمنين وحجة على الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 waaye itam fulal ñu ko bi jaahi sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam auditeur auditrice bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen tatagal di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk rek euh, la ngay yëngatu moo xam mu néew mu bari yàlla na ci yàlla yokk barke ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye itam mu njëkke loolu ci kër gii nga xamante ne fi lañuy yewoo muy safina tv di ñaanal kilifa yi nga xamante ne ñoo ko taxawal ka ca bopp ba di cerno xaamidu baan ñu ngi koy yokk ko ñaanal yàlla taxawaay bi yàll na ko yàlla gën a yokk di jaaxi sayidu wujuud salallahu aleyhi wasallam ba lépp loo xamante ne nal na ko mu nekk ci kanamam yàll na ko yàlla gën a ful ba bu manee benn man ñaar bu manee ñaar man ñett muy gën di dem di gën a kawe màqaama yooyu yàll na ko yàlla defal waaye ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ànd ak moom di ko jàppale ci loolu nga jiital ci ku ci mel ni ajaa ñu ma ba ñu ngi koy ziyaara moom itam di ko ñaanal yàlla ci taxawaay yi ak yaakaar yi nga xamante ni jël nañ ko lenn fiitaleel ko ko te muy lan fexe rek kër gi baax yàlla bu yaakaar yooyu yàkkeeku ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nuyu ñëpp mboolem asaatisa bu fi yeewoo ñu ngi lay nuyu di leen ziyaara di nuyu imaam alxaaji Moussa Gueye waaye tam mbokkam mu baax moomu di alxaaji ustaas Abdullahi Ndiaye ñu ngi koy nuyu al ustaas Ibrahima Ba ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di leen ñaanal yàlla al oustaz Mouhamadou bal ba ci oustaz Adama Ñing oustaz Mouhamadou njaay mu ndaw ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci taxawaay yi nga xamante ne ñu ngi koy amee rawatina jëmale ko ci daara dëkkandoo jàmm ci gën yépp comme ni ñu ko baaxoo def rek euh, ni la ñu fas yéene ñëwaat ci seen émission bi ñuy tuddee at tazkira muy fàttali nga xamante ne alxuraan du deñ toujours di ñu ko wax di ñu ñaax ngir lan ñi mën a gën a góorlu waaye yokk laxasaa yi itam ba képp koo xamante ne fàtte nga rekk ñi jéem laa fàttali ndax fàttali googa borom bi nee na dana jariñ ki nga xamante ne bëgg naa fàttaliku waaye itam dana jariñ ki nga xamante ni xamul woon yoon wi waaye itam dana jariñ ki nga xamante ni dafa fàtte woon bu demee ba mu yàgg dox ba sori lool ñi doxe ko ginnaaw fëgg ko bu waree yokk tànkam mu yokk waaye itam bu waree wàññi tànkam mu wàññi loolu mooy li nga xamante ne moo ko ëmb di ñaan na lépp loo xamante ne génn nañ ko fi yàlla nañu ci yàlla dimbali ba lépp lu ciy digle ñu koy àddu ñi jiitu ca cay def ga waaye lépp loo xamante ne lu ñuy tere la ñu ciy àddu itam tere googa ñi góor góorgóorlu fexe ba kenn duñu ci fekk loolu rek mooy li nga xamante ne moo ca am solo fa tabaarakallaahu ñu am nag cëslaay ndax olof da koy faral di wax naan jàppal boo gis rekk walla tàgge boo gis am na jàppal diw at tazkira nag cëslaayam mooy alquraanul karim ba ni ñu ko waxee woon rek fa tabaarakallah mboolem loo xamante ne aju na ci insha allahu danañu ci def suñu kemtalaay kartan comme noonu nga xamante ni ni lañu ko tàmbule woon ak yéen di ci andi ay ngëneel ngëneel yoo xamante ni yu ama am solo la nga xam ne tey kii taxaw naan da koy jéem a lim sax kooka mu ngay juum ndax lim loo xamantene manoo koo matale loola yaakaar naa ne manees na koo tudde sax fop ala kulli xaal ba moo waral lépp loo xamantene rek àddu nañ ko si ñi koy def di ko fàttali ngir doomu aadama bi xam fi muy teg tànkam fan la ndax jullit bu nekk ak ku mu ci mën a doon rek am na ko doon sa royuwaay waaye am na loo xamante ne mooy doon itam sa royuwaay bu dee ci wàllu jëfandikoo ngay jëfandikoo loola lu muy digle ngay def waaye lu muy tere itam nga bàyyi ndax jullit bu nekk am na royukaay ñun nag suñu royukaay mooy suñu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam yàllaa ñu ko wax ne mooy seen sëriñ roy leen ko nag ba li mu digle ngeen nekk ci góor-góorlu def ci seen kem talaay kartan li mu leen tere rikk waay góor-góorlu leen fexe ba bu ci kenn dem waaw loolu la ñu borom mi subhaanahu digal ci alquranul karim yonent bi doon suñu sëriñ ala kulli te noonu mu ñu digale woon ngir ñu roy bi alayhi salaatu wasalaam mu doon suñu sëriñ noonu itam ni la joxañe suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom itam ne ko toppal sa sëriñ lu mu def nga def ko loo xam ne daawu ko def yow itam góor góorgóorlul bu ko def muy kan suñu maam Ibrahima mu doon sëriñam yàlla doxoñ joxoñ ko ci alxuraan ne ko topp ko lum la def loo walla lu mu daan def nga jéem a aw ci ay jeexitalam ay jaar-jaaram ndax moom kat ay jaar-jaaram xool naa ci biir xool ci biti waaye lu ma gërëm la kon loolu lu ci am solo la te ku mu ci mën a doon ku nekk ci yonent yooyu danañu la jox lu la gunge la gunge moo xam téere lay doon walla ñu tudde ko mujisa ala kulli haal te booy xool mujisa bi gën a garaaw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaa amul mujisa bu ëpp alquraanul karim ndax na mu ko waxe woon rek koo xam ne dafay teqale diggante dëgg ak neen ba bu ñëwee jaxasoo du ñu xam fan la dëgg gi féete du ñu xam fan la neen gi féete nee na boo ñëwee ci alxuraan rek mooy ñëw taraasal la ne dëgg ñi ne waaye tam ne la nee na ngi nii waaye wax la li li jiitu woon nga xamante ne yow fekke woo ko sa jamono yi yàgg yàlla alxuraan boo demee moo lay partagel di la jàngal naan laan li nga xamante ne moo fi jiitu woon te fekke woo ko nii ak nii ak nii la wax la ko ba mu jeex tàkk waaye naka noonu alxuraan boo fa demee moo lay wax li nekk ci sa kanam te ñëwagul ala kulli xaal ndax euh, dafa ndar kàpp lépp bàyyiwul dara te boo fi jugee itam ëllëg itam ñeneen ñi ñëwaat sa ginnaaw ñoom alxuraan moo leen di nettali nekkat amoon na ku tudd diw dëkk bërëb sàngam diwéy diwéy ñooy waajuram nangam daana wax li fii la ak dundam tàmbali woon waaye ak dundam fii la yam alxuraan moo ñu koy nettili ala kulli hal bo deme ca biir danga ca gis yooya mu leeralal loon ñu ko ba waxon ne nag ne du waxi caaxaan képp koo xamante ne bàyyi nga ko nag nee na yàlla dana la sànk ñan mooy sànk yi dangay aw ci yoon woo xamante ne du bokk ak yoon yi borom bi subhanahu wa taala bëgg doomu aadama bi dal di siy jaar waaye itam nee na amul kenn koo xamante ne ah, di nga ci soobu jële ci gàcce déedéet képp ku ci soobu rekk na la leer ndam nga ciy am waaye itam tuyaaba rek nga ciy am te waaye nee na li ci gën a neex mooy mboolem ñi yor làmmeñ di ko melal naan nii la mel wala ne nee na ñoom ñépp dañu lottu ci taxaw di melal alxuraan ne nii ak nii ni la mel waaye yemul loolu bokk na ci li tax borom mi subhaanahu wa taala wàcce ko ci suñu yonent bi ngir ñu koy mën a jëfandikoo nee na bokk na sax ci ay kéemtaanam ki koy wut maanaam du ci doyal ki kii jàng alxuraan wala mu koy jàngulu ala kulli xaal saa yoo xëyee da gis cofeel gi gi mu am ci biir alxuraan day gën a yokk ala xaal tey boo xoolee sëriñ daara yi lu ñu gën a màggat màggat rek tey bala ñoo woon a gën a kontaan rek nga yor sëb jukki wala boog nga ñëw toog seen wet di jéem a nab bi ci alquranul karim da ngay seen bu fekkoon ne feebar bu amoon si seen ci seen biir sax da ngay seen dañ loola feebar booba dafay dal di wér ci sens ndax lu ko waral kàddu borom bi nga xamante ne moom lañu dégg yow doomu aadama bi nga koy jàng ñu kontaan ci lool te nee na itam lu wax bari bari bari mënta fexe ba li ci yàlla bindoon mu effacé wu ak nu jamono tëdd tëdd ak nu jamono tëradi tëradi itam la ca yàlla programme woon lam ca waxoon du du du changé dara waaw jamono nag mooy dem léeg-léeg ba cooli bari lool waaw dem ba réer gi bari lool lu koy waral wan ginnaaw gi nga xamante ne war nañ ko ginnaaw ala kulli xaal waaye nee na saa yuñ bëggee solution rek buñ demee ci biir alquran dana ñu teg ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon woo xam ne képp ku ko topp rek di nga am yoon wu baax te mooy yoon wi lay jëmale biir aljana waaye itam moytandiku loole itam foofu nga xamante ne mooy këru safaan ga moo tax mu ne képp ku ci wax say wax jooju wax ju dëggu lay doon waaye képp ku ko fi bàyyi dem waxaat laneen nee na la ngay waxaat amaana mën naa dëggu waaye amaana mën naa ñàkk dëggu waa yemul ci loolu itam lépp loo ci wax itam dañ la ciy bindal ay tuyaaba rawatina ci weer wi nga xamante ne la ñu nekk muy sahru ramadan al mubarak bi nga xamante ne alquran ñu ngi ko wàcce woon ci weer bii ñi nekk nii nga xamante ne moo di weeru koor fa tabaarakallah ba wàcce ko ci guddi goo xamante ni guddi gu barkeel la guddi goo xamante ne ñu ngi koy tudde guddi laylatul qadr borom bi doon ñu ko junj ngir màgg gi nga xamante ne màgg na ko booy xoolee ci weer wi ci la ko yàlla wàcce mu doon ay ngëneel yoo xamante ni suñu yonent bi alayhi salaatu jàngal nañu ko ci hadis waaye itam buñ demee ci alquran jàngal nañu ko ci itam waaye téewul jibril alayhi salaam moom itam noonu la daan def di ànd ak yonent bi alayhi di ko jàngal muy nafal alquranul karim ngir mu beñ koo fàtt ala kulli xaal moo tax saabu weer jotee ni ñu koy waxe mu wàcc ci moom mu nafar alquran waaye nee na buñ demee ba weeru koor jot nee na nga seen mu ñëw wàcc ci moom ñaari yoon ngir lan mën a nafar alquran kon foofu lan nga fiy jàngate ndekete weer bu jot dinañ ñëw wàcc benn yoon weer bii ñëw mu ñëw wàcc ñaari yoon lu ko waral mooy jox gëdd gi nga xam ne jox na ko gëdd waaye wax ko ne ko itam danga ko gën a war a fonk ndax dañuy toll ci anniversaire am moo waral tey muy jàkka yeeg muy jumaa yeeg foo xool rek maasa allahu borom xam-xam yi ñu ngi toog si jàkka yi di firi di ji jéem a nabda bi seen kemtalaay kattan ndax kon téere la boo xam ne kado la bu jóge ci borom bi subhanahu wa taala te kado balaa baax wala balaa neex la nekk ci biir nga xam loola lan la nañ ko waxe woon lettre buñ la bind jox la ko tey doo boo bala nga koy ubbi avant nga koy xool bu doon ne danga koo jël rek teg ko ku ñëw nga ne ko xoolal sama leetar bi ni mu rafete kaar te yow gisoo sax mbind ma xamoo lan moo nekk ci biir di ko tagg rek daanaka njariñ la du bari waaye boo jéemee góorgóorlu bala ngay tagg wala nga cee wax lenn fexeel ubbi leetar ba jàng ko boo mënee jàng boo mënta jàng nga dem yóbbu ko ñi jàngal la bu ko defee nga xam la nekk ci biir lettre ba bu dee luy digle nga def bu dee luy tere nga bàyyi bu boobaa nag bu dee mbind ma rafet naag ya ca xew yëpp bu boobaa nag nga door a tàmbali nag di ko kañ boo ko waree kañ nga kañ ko bu dee loo war a def itam nga xam ne lii kat moo nekk ci biir lettre bi kon moo waral ñu koy jéem a nab nabi di firi doomu aadama yi di xam li ci yàlla digle ñu jéem cee teg suñu kemtalaay kartan waaye di moytandiku li nga xamante ne moom la ñu tere ba kenn ku ci nekkoon dal di jéem a moytandiku loolu dal di koy bàyyi waaw nee na képp koo xamante ne yaa ngi woote jëm ci nee na boo ko wàccewul de moo lay yóbbu ba yóbbu la biir aljana te bokk na ci melokaan yi nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala melool na ko nee na ak njubla ñeel gaa ñi nga xamante ne dañoo ragal yàlla waaw bokk na ci melokaan yi njub la goo xamante ne gaa ñi ragal yàlla ñoom ñoo ko moom mu doon garaat bu rëy rëy rëy te amul sikki sàkk moo tax la ñu junjoon ne alif lam mim ne zalikal kitaabu laa rayba fiihi ñu ne ko lu ko waral mu ne huddan lil muttaqiin waaw njub la ñir lan ñi ragal yàlla waaye yamu ci wa huddan lin naasi njub itam li ñeel doomu aadama yi ñépp nag ñoo ci bokk yam képp koo xamante ne xamoo foo jëm boo ci jaaree rek mu ñëw teg la ci yoon képp koo xamante ne xamoo dëgg fu mu fiite wala ragal nañ la wax dëgg nga toll ci garaat boobu neena demal jël alxuraan nga jàng boo ko jàngee rekk bu fekki ni bii garaat boo takkoon gaa yi ragal la bañ laa wax dëgg nee na bu boobaa moom mooy ñëw aw ci digg bi wax ko te du ko wàññi dara te dara du ko ci fekk waaw kon képp koo xamante ne am nga ab pouvoir boo xamante ne gaa ñi ragal nañ la bañ laa wax dëgg nee na daal góorgóorlul nga dem wuti alxuraan njàng ko wala boo ko mënta jàng nga dem andi ku ko jàng mu ñëw jàngal la walla boog nga andi koo xamante ne dana la ko firil wax ne yàlla nee na yonent bi nee na nàngam ak nangam. waaw nga xam fi ngay teg sa tànk ndax moom durus lenn lépp lu mu mën a doon rek da koy jox gëddam ba mu mat ni nga war a dundee sa digganteeg sa borom boo demee da nga ko fa fekk mu leeralal la ne la sa digganteeg sa borom nii ak nii nga koy jaamoo waaye bul ko jaamoo nii ak nii waaw ba mu leer nañ xanaa kon bu yemoon sa digganteeg sa borom rek doy na mais déedéet léeg-léeg doomu aadama yi danañu jëfandikoo ci seen biir ni ñu war a dunde boo demee ci biir itam mu nga fa ne yow doomu aadama bi nii ak nii noonu nga war a dundee yàgg sa mbokkum jullit waaw noonu lay topp ba ci jëkkër ji ak jabar ji noonu lay toppe ba ci euh, way juru góor wi ak doomam ba ci way juru jigéen wi doomam ñoom ñépp kenn ku ci nekk àq bi war sa digganteeg sa moroom boo ko xamul boo demee ci alquran alquranul karim moo lay ñëw leeralal la ko ba mu leer nàññ ne yow wéyjur nga loo doon doon doon wéyjur fii ngay aw fii mooy sa yoon waaye tam fii ngay yem waaw mënoo ko jéggi ñëw tourné si doom ji tam wax ko ne ko yow itam doom nga loo tuuti tuuti loo gàtt gàtt ay àq itam am nga ay àq yu dox sa digganteeg sa sa wéyjur waaw fii ngay aw waaye nag boo egsee fii yamal fii boo demee ci biir alxuraan da nga ko fi fekk alxuraan leeralal ñu yooyu yëpp ni nga war a dunde ak say wéyjur ni nga war a dunde ak sa soxna waaye ni nga war a dunde ak say doom ñëpp boo demee ci biir alxuraan da ko fa fekk xataa ba li nga war a dunde ak bàyyi may yi sax alxuraan yàlla leeralal nañu ko ne yow doomu aadama bi nii ak nii nga war a dunde ak bàyyi may kon moom bàyyiwul dara li yàlla ne woon bàyyiwuma ci téere bi dara loolu saa yoo xëyee rek jamono moo la koy wan macha allah nga koy gën a gis waaw ndax yii yëpp ay misaal la ci yaa nga lu bërëb sàngam di àddu àdduna bi yépp ku jàpp rekk daj la gis la lu ko waral ak fan la jaare ñi koy jaarale ci ay fiil ci ay caméra yu mel ni ki yooyu alxuraan leeraloon nañu ko wala qad wasalnaa ilayhimul qawla ba ko yàlla di wàcc soo sóorat Shu'ara kañ la woon boobaak léegi junniy at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar jàpp ñeent fukk ak ñett ba mu koy annoncé ne nit di nga tollu bërëb sàngam nit tollu bërëb sàngam ngeen di wax may kii kii di àddu kii di dégg ngeen koy jokkalante ana téléphone yi fan la jaare bu kii waxee kii wax kan mooy jàllale wax ji jàll jalaaluhu ci fan la ko jaarale ci portable bi portable bi kan moo ko créé doomu aadama doomu aadama ku ko créé yàlla bu ko yàlla amalul woon est ce que dina am ndax wala boog machine bi ñooy jekki-jekki di di di filmal seen bopp dedet technicien moy ñew taxaw diko orienter di def nangam ak nangam lu ci jaadu mu aw mu awale ko fofu lu jaadu won mu bayiko waye teubuñu teub jek jek di di di di, di filmol sen bop dedet portable bi et nonu jek jek wul di composer bopam di wote dedet dafa am ay yoon yu mu jaar yuñ ko jaarale ba bo composer mu mana dem waaw kon yoy yeb ay misal la ci doomu aadama bi jéem cee bàyyi xel waaye ndekete moom kat huddan lin naasi la waaw waaye yemul ci loolu rek euh, weer la woo xamante ni itam ci lañu wàcc alquranul karim muy weer wi ñu nekk nii muy shahru ramadaan allazi unzila fiihil quran waaye huddan lin naas wa bayyinaatu minal huda moom njub googu yàlla doon wax moom la ci doon misaal léegi nii muy furqaan ji nga xamante ne ñu ngi koy jéem a melool waaye képp ku koy melool da ngay jéem rekk waaye mënoo ci lenn sa kemtalaay kartan rek nee na noonu nga ciy waxe waaye la ca yàlla namm dëgg-dëgg ba kenn xamu ko moo waral mu ne wa maa yaalamu taawilu illa allah nee taawilu alquran bi daal kenn xamu ko ku dul borom mi subhanahu wa taala teewul nag dañuy jël di jexe suñuy misaal ak ni ñu ko arab jàngale grammaire jàngale ñu noonu ne baat bi lii ak lii lay firi wala lii ak lii la ci yàlla namm fekk na amaana loola boo ci xamee benn amaan na yeneen junni yoo xamante ne yàlla namm na ko ca loola te yow xamu ko sa àlluwa itam àggul ci loolu kon bu ko defee ñi jéem cee góorlu jéem cee nab nabi jéem cee gën a yokk nab nab bi te xam ne moom moo fi nekk lu dul alxuraan alxuraan la gën lu dul téere bi téere bee la gën ñi jéem ci gaaw nekk ci bala ñu fee jóge ñi ñu ciy nekkal bu boobaa mu doon ay rëbb comme ni ko yonent bi waxe woon jaarale ko si làmmeñi suñ yaay isa mu nettili woon ñu ko ne bari na kuy jàng alquran fekk alquran anga koy rëbb naka la ko alquran di rëbboo yow juddu nga màgg nga ba faatu soxlawoo ko soxlawoo ku koy jàng bëggoo ko koy jàng ki koy jàng kay ngay gàcceem ngay xool toujours guddi ak bëccëg nu mu toroxe rek ngay gis waaye itam loolu ngay bëgg loolu ngay woot waaye saa yoo demee ba jóge fi nag nit ñi ñëw tourné taxaw di la ko jàngal ñi jàpp ne jàngal googu ñi lay jàngal yërmande lay doon nee na déedéet nee na jàng googu ñu koy jàngal musiba lay doon ci moom wala yow mi koy jàng la alxuraan di digle doo ca def doo ko def la mu lay tere ci nga dëkk kon yow moomu koy jàng jàpp na ma ni la fekk na boobu ay du duma yu metti la lay jural kon loolu yàlla na ñu ci yàlla musal di jaay saydu wujju salaay salaam lu ci waay man rek nga góor góorlu ko xam ne weeru def lu baax la ndax loo ci jëf rek dañ la koy bindal tuyaaba ful ko kon ful googu itam fekk la ngay jàng alquran di ci nab nabi ndax ci weer wi ci lañu ko wàcce loolu lu ci am solo la ndax mooy suñu leerukaay mooy suñu làmp bu ñuy leeral mooy suñu ndab li ñuy tànqe waaye mooy suñu lekk goo xam ne bu ñu xiifee ci la ñuy di xéewlu kon bu ko defee rek loo xam ne mënta ñàkk ci yow nga jéem a taqoog moom dafay am solo moo gën ba nga jóge fi ñi ñëw di la ko taqal fekk yow booba jaralu la woon dara kon rek mel ni mbokk mi ñu junju di ñu xamal ne li ñu amoon ci waxtu wi jeex na du ñu def rek lu dul tënku ko foofu mais ñu naan lu jiw a jeexu rek jugu fa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaara Serigne Papaloo ca euh, France ak rakkam jooji di Maodo ñu ngi koy ziyaara Moustapha Gange moom itam ca France ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla Mouhamadou Ndiaye ca Niger moom it ñu ngi koy nuyu Abdul Aziz ci Arabi Saoudi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare El Hadji Malick moom itam ca Égypte di ko nuyu di ko ziyaare yàlla na yàlla yokk taxawaay bu baax Serigne Babacar Diaham ca amoo 5 ñu ngi koy nuyu ak soxnaam soosu nga xamante ni moo di eh, soxna Faatu Ndaw jàpp ca amoo 6 ñu ngi leen di nuyu maire Fall gën koo maire ci maire gën koo miin ci maire Khady Fall ñu ngi koy ziyaara ak eh, soxna Faama njaay ak borom këram mii nga xamante ne mooy Serigne Ibrahima mbay ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla mottali yépp zahiran wa baatinan soxna Ami caw moom itam ca amoo kaat ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bàyyiwuñu kenn ñu ñu lim rek ñi demaaleel géew ñi nga xamante ne kenn ku ci nekk bëggoon na ñu jaar sa tur waaye li ñu tënkoon ci waxtu yi rek moo jeex dañ koy tënku foofu rek lu ci jum ñi xam ne mbaaxu yàlla la di ñaan yàlla may ñu ñu fekkewaat ay bis bii di ñëw incha allah lu jub ci wax ji ñu xam ne mbaaxu yàlla lu ci dëng matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu wa ahiru dahwaana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu